بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom ma ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere bi di kitaabu tawxid tey ñuy jël bunta fanweer ak juróom muy buntu la ñëw fir riyaa ci ngistal baabu ma jaa fi riyaa buntab la dikk la ñëw jóge ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyeekoo ci borom bi di ñu jàngal di ñu leeralal ngistal muy feebar boo xam ne néew na tey ci mbokki jullit yi ku ci mucc néew na ci ñun ku mucc ci feebar bi nga xam ne moom mooy ngistal mu ne la ca dikk ci bunt bi di jàngale di tere di moytandikuloo nit ñi ay minan nahyi wa tahzir la ca dikk di ñu moytandikuloo di ñu tere lii di ngistal di feebar mu ne qaala alxaafiz huwa mustaqun min alruya walmuraadu bihi izhaaru alcibaada liqasdi ruyati nnaas ilaha fa yaxmuduuna saahibaha sëriñ boobu ñuy wax alxaafiz nee na baat bii di ngistal dañ koo jële ci ruya a ruya mooy ngistal def dara gis-gis mooy gis-gis mu ne wal muraadu bihi liñ ci namm fii nag ci téere bi boroom xam-xam bi di ko jàngale mooy izhaarul ibaada mooy feeñal jaamu yàlla waa ji day jaamu yàlla jaamu yàlla bi mu feeñal ko ne ko dàng ci biti lan moo tax waa ji génne jaamu yàlla bi feeñal ko mooy li qasdi ruyati nnaasi laha ngir nit ñi gis ko daan ne kii dey ab jaamu katu yàlla la kii de ab jullikat la kii de ab woorkat la kii de ab joxekatu azaka la kii de ab ajkatu màkka la kii de ab saraxekat la kii de kii de kii de kii de li tax waa ji génne jaamu yàlla bi nëbbu ko ne ko dàng ci biti mooy bëgg nit ñi yëg ko waaye bëgg nit ñi wax ko loolu mooy ngistal bëgg nit ñi gërëm ko fa yaxmaduuna saahibaha ñu gërëm ko daan ne diw jaamu yàlla la diw waaraatekat la diw jullikat la diw saraxekat la diw jàngkatu alxuraan la diw ak a baax lii moom mooy ngistal mu ne wal farq baynahu wa bayna suma lii différence moom ngistal ak déggtalu mooy anna ruya lima yura min al amal lii différence déggtal ak ngistal ngistal pour ñu gis la la déggtal pour ñu dégg la la am na différence différence bi mooy kii ngistalu dafa bëgg ñu gis jëfam lan la ñuy gis ka salaati lu mel ne julli gi muy julli amma suma bu fekkee déggtalu nag mooy li ma yusmau mooy na waa ji wax ba ñu dégg ko kal qiraa lu mel ne jàng alquran wal waaz wala waaraate wa zikr wala tudd yàlla ñett yi au lieu mu aji wax ko ndànk wala mu def ko ndànk wala mu def ko ngir yàlla waaye léegi la feeñ ci moom mooy jaamu yàlla yenn yi dafa bëgg mu def ko nit ñi gis ko teg ci bët yeneen yi dafa bëgg nit ñi dégg ko ñaar yooyu nag mbokk yi ñaar yëpp musiba la ñaar yooyu yëpp day tax doomu aadama perte àdduna waaye day tax doomu aadama perte àllaaxira kon na wenn waaye bu tudd Ahmad ibnu Miskin waa ju ñàkkoon la waa ju sonnoon la ñàkk na ba amul lu mu lekk ba ñàkk gi poussé ko mu ne day jaay këram daana toog ay fan toog ay waxtu lu mu dul lekk lu mu dul naan mook soxnaam ak njabootam génn na benn bis moom Ahmad ibnu Miskin di uti lu mu lekk ndax mënatul toog ci kër gi ndax mënatuñu lekk mu dem dajeek benn mbokk jullitam wax ko situation waa ji daal di jël ñaari mburu jox ko ko wala ñaari pain au lait wala ñaari bonbon jox ko ko ne ko bul jaay kër gi demal nga toog ba ma ñëw lu muy dellu mu dajeek benn jigéen bu ko gën a jaaxle bu ko gën a xiif bu ko ëpp problème gàddu ay doomam doom yi yuuxu ndax xiif bi doom yi séenee Ahmad yor ñaari pain au lait yooyu ñu ne ko mu ne leen ndaw si ne ko doonu dimbali ndax ñaari xale yi lekk ndax ñii dey ay fan a ngi ni lekkuñ ndaw si di ko wax di ko ñaan ndimbal di ko saraxu ahmad ibnu miskin nee na ba ma gis aljanna moo taxaw sama kanam ak safara su ma ko joxee dina am aljanna su ma ko ñàkkee jox jaral na ma dina tax ma dugg safara mu ne ma xalaat ndaw si ni mu sonnee waaye ma xalaat sama waa kër ñoo gën a sonn waaye ma xalaat yàlla mu ne ma jël ñaari mburu yooyu jox ko ndaw si ndaw si daal di koy jox ay doomam mu ne ma daal di toog ci suuf nag foofu ma toog di xaar yàlla te xam ne mënatumaa ñibbi ak samay njaboot ci situation bi nee na bi ma joxee ndaw si mburu yi li ma njëkk a seetlu mooy ndaw si ñaari rongoñam dañoo tuuru ndax kontaan mu ne fu ma toog baa ngi xalaat lan laa war a def mu ne sama xarit boobu nga xam ne moo ma joxoon mburu yi rek ma dégg mu yuuxu daw di ñëw naan ma ana ahmad ibnu miskin ana ahmad mu ne ko ma ne maa ngi nii mu ne looy fi def ko ah ma fi toog xaar yàlla mu ne yow sa kër xanaa yëgoo ne mbooleem taraanga mu ngi foofu wàcc benn waaye nga fa wàcc jóge xuraasaan wàcce fa lu dul jeex ci ay taraanga àdduna looy def fii mu ne ah ku kan la waay nee na ñu daw jëm kër ga bi ñu demee ñu fekk fa benn commerçant commerçant bi ne ma alal jii ma yor sa alalu baay la lii ma fi wàcce ci kër gi sa baay ko moom moo ma ko lebaloon may commerce ma am problème ma génn dëkk bi dem Xuraasaan nekk fa nekk fa ba yàlla defal ma tawfiix ma dajale woon alal ji nag di ko indi ma fekk faatu na ma laajte ñu ne ma dooma ma fi des bëggoon teg alal ji sa loxo Ahmad nee na ma jël alal ji yokk ko bu mu gën a yokk waaye di ci dimbali di ci saraxe di ci def lu baax mu ne ndaw soosu sax dama koo woo garantil ko dundam weer wu dee maa koy jox ration mu ne waaye ci ndimbali boobu may dimbali nit ñi damaa dem ba ci yàgg ngistal di ci dugg defatuma ko ngir yàlla damay wane ne maa fi dàq joxe a fi dàq saraxe ku fi lekk maa la lekkal ku fi naan maa la naanal nee na ci loolu laa nekk noonu laa nekk rek ba benn bis may nelaw rek ma gént yowmal xiyaam ñuy àtte jaam ñi malaaka yaa ngi woote diw taxawal ci kanam yàlla dañ lay àtte ba ñu wooma ma taxaw rek mun nañu indi balance bu ma teg samay jëf yu baax ak sama jëf yu bon mu ne jëf yu baax yi ma doon def bu ñu indi teg rek mu daal di yàqu la ko yàq mooy ngistal jëf bu baax bu ñu indi teg ci balance bi rek mu yàqu mu ne noonu laa nekkee noonu laa nekkee rek ba tiyaaba yi daa dem rek bàkkaar yi daa di ëpp ñu ne waaw waa ji ak lu baax li mu doon def mu ne mu gis kàddu yi waa ji ak lu baax li mu doon def yëpp safaral na la dem ah ñu ne waay seet leen waay seet leen lu baax lu mu doon def li waay ndax amul lu des lu baax mu ne ñu seet seet ñu ne kii kay desewu fi dara kii kay dem safara rek ba ci àgg rek ñu ne am ku ne ah moom am na am na am na fi dara kay am na fi dara ñu ne lan la fi am ñu ne joxoon na benn jigéen ñaari mburu mu ne ñu jël ñaari mburu yooyu daal di teg nee na yëf yi daal di yéeg tuuti waaye des na de mu ne ba tey rek ñu ne ah kii daal safara la jëm ndax moom desewoo fi dara kon nag na dem safara ñu ne ah déet déet dese na fi dara ñu ne lu mu fi dese ñu ne defe na si rongo ñu ndaw si dafa loon na benn jigéen teraanga ndaw si daal di jooy ngir yàlla rongoñ yooyu lañ ko dindal tiyaaba mu ne ñu daal di jël rongoñ yooyu teg ci sama balance looloo ma looloo ma sëwe ñu ne kon kii na dem aljanna mu ne yàlla def ma yeewu muy gént mu ne ma sant sama borom xam ne yàllaa ma bëgg pour ma deltu ginnaaw kon xista boobu bokk na ci liñ ciy jëlee mooy doomu aadama ab jullit lépp lu mu mun a def na mooy te ni ku ngistal waaye na moytandiku ndéggtal ngistal mooy nga def jëf ji pour ñu gis ko lu mel ne julli yi ngay julli déggtalu nag mooy bëgg li ngay def nit ñi dégg ko lu mel ne jàng bi lu mel ne waaraate bi lu mel ne zikr bi loolu yépp nag daal ci dugg loolu ñu naan ngistal wa yadxulu fi zalika atahaddusu bi amali yi dana ci dugg di waxtaane say jëf man maay def nangam dëkk bi maa fi ëpp doole ku fi lekk maa la jox nga lekk ku fi naan maa la jox nga naan xanaa gisu leen nangam maa ko def gisu leen nit ñi ni ñuy range sama kër gisu leen enveloppe yi may joxe gisu leen ceeb bi may joxe gisu leen nangam mbokk yi lu mel noonu ku ko yàlla na too sa mbir yàqu na àdduna waaye dana yàqu àllaaxira moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu ñuy soññ pour ñu moytu ñu gistal mu ne li gën ci sarax yi sax mooy sarax bi nga xam ne loxo càmmoñ bi xamul lan la ndeyjoor bi joxe ci nëbb guñ ko nëbb biñ nee suba la tabaski heure yi dama toog sama kër sama portable sonné ma jël xool muy numéro boo xam ne enregistré wu ma ko benn waay ne ma asalaamaaleykum ma ne waaleykum salaam mais na nga def ma ne ko maam fi rek mu ne yow la imaam lii ma ne waaw yaa ngi dëkk ci etu stade bi ba tey de ma ne waaw mu ne maa ngi fay ñëw ci kanam dafa am benn surprise bu ma lay indil ma ne ko surprise mu ne waaw ah man ko wax baax na maa ngi lay xaar ñu toog toog ñu liggéeyee li ñu doon liggéey ci kaw ba pare ñu génn lal suñuy basang ci mbedd mi toog di noppalu di féexlu ñu nag njaboot gi ba muy waaju guddi xale yi commencé di ma tooñ ne ma waayow ana sa surprise bi nga waxoon ne mi ngi ñëw soxna yi commencé di ma tooñ quoi ak xale yi naan ma prise ba nga xale yi rek ma ne ah man de wax dëgg yàlla waajee ma woowoon fekk bi mu ma nee dama la indi surprise ma ne soxna yi ah dañ may indil ñetteel de préparé leen surprise ñetteel lañ may indil xale yi moom man leen ah est ce que du xarum tabaski comme suba la tabaski ba jàng man leen est ce que du saako pomité rek saako soble instant bu nekk rek ma tooj leen quoi ñu toog ba ci yàgg ba mu waaj a guddi nag téléphone bi sonné waat ma jël waa ji ne ma ah man de maa ngi ci stade bi fan nga dëkk ma ne ko man de ah fan nga nekk mu ne ma maa ngi nii ci kaw tali bi ma ne ko lan nga yore mu ne ma oto bu weex ma ne ko oto bu weex bu mag bi may séen mu ne waaw ma ne ko man maa ngi taxaw sa kanam mu ne kon xaar ma dugal ko ci biir bu tuut nag oto bi oto bu ponkal bi ma séenee oto bi ma ne ah gars yi kon nag sama surprise bi xaru tabaski la gis ngeen oto bi xaru tabaski la waa ji daal di daw ñëw wër ma daal di tourné taxaw def demi tour ñëw jàkkaarloog buntu kër gi oto baa ngi fermé wu tout ponkalu oto ma ne ko waaw mu wàcc ñëw nuyu ma man ko ku la yónni mu ne dafa wax bu mu wax turam ah lan la la wax mu ne bu ma ko wàccee di nga ko gis mu ubbi maalu oto bi ci bunt yi ci ginnaaw ñaari bunt yi ñaari bunt yi mag la mu ubbi ko comme dafa lëndëm ba léegi courant dafa coupé woon aussi xaw ma lu nekk ci oto bi ma ne waaw yow wàccal sama saaku computer rek saaku soble bi waa yi di ree mu ne ma ku la wax loolu la ma ne ko ah oto bu ngand bi kay loolu rek laa yaakaar ni loolu la fi yorante mu ne ma du loolu de bi mu ne bi mu bi oto bi am na ñaari xale yu doon nelaw ci ginnaaw mu daal leen di tàpp xale yi jóg wàcc bi xale yi wàccee mu taal port torsam mu nekk ay fauteuil yi ñu wàcce fauteuil yi mu nekk ñetti fauteuil yi ay canapé yu gudd mu ne ma yow yaa ko moom ma ne ko kan moo la ko jox ku ma ko jox mu ne ma nee na bu ma wax turam war ma fu ñu koy def ah daal di yéegal fekk semaine boobu maa ngi doon peintiraan saal bi ma ne waaw lii kan la ku ma yaakaar ne kooku la ma woo ko téléphone kooku ne ma wallaay du man yëgu ma ko ba léegi nii may wax ak yéen xaw ma kan la fa yaa ngi foofu ci kaw am na ñu ma sib sonné nag ne diw la wala diw la wala diw la te dafa ne moom waa su ma demee waa ji dina la woo ba léegi kenn woowu ma kon nga xam ne ba léegi am na nit ñu baax ñoo xam ne ñoo ngi jëf ngir yàlla yu mel noonu nag moo war a bari doomu aadama jëf ngir yàlla am na benn waay boo xam ne mu ngi ci koñ saa yu weer dee kii jaay bitig bi pour la futa bi dina ko yóbbul saakub ceeb te ba léegi daanaka moom mat fukki at waa ji xamul kan moo koy jox ceeb bi saa yu weer dee na ko ne góor gi kaay jël sab ceeb su góor gi ñëwee jël ceeb bi ne ko kan noo kan la mu ne ko dafa ne woon bu ma ko waxee loolu mooy sart bi ah kon ngistal ak déggtal day yàq jaamu yàlla jaamu yàlla bi lu mu bari bari bari bu tolloon ne vague géej boo ci ngistaloo mu yàqu soo ci déggtaloo mu yàqu moo tax nit nit ñi wala kenn ku nekk ci ñun mu war a góor góorlu ba jëf yi muy def na ci moytandiku ngistal waxuma la nag déggtal waaye na moytandiku dem di ko nettaliwaat man de damay fanaane naa fi la guddee damay jàng alxuraan bis bu nekk ak man damay julli nangam ak damay saraxe nangam ak damay def nangam ak damay woor nangam ak nangam ak yooyu ab jullit na ko moytandiku di wax yow li ngay def defaloo ko ma sàmba defaloo ko ma demba kan nga koy defal sa borom bu ko sa borom gisee doy na maadaama sa borom nga koy defal sa borom xam na ko yëg na ko gis na ko doy na jarul nettali bàyyi ko noonu moom xam na ko moom yàlla mu ne qaala almusannif rahimahu llahu taala wa qawluhu taala qul innama ana basharum mislukum يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آية بي سنو برم نينا يوم محمد عليه الصلاة والسلام نغا لين يغل ني وخ لين ني man de am mbindeef laa comme yéen qul innama ana basharum mithlukum man de am mbindeef laa comme yéen ñii ni leen yàlla bindee la ma yàlla bindee da ngeen am ay am da ngeen am way jur bu góor am way jur bu jigéen ma am way jur bu góor am way jur bu jigéen kenn ku nekk ci yéen ni nga juddoo nu ëmb la ba weeru am doom yi jot nga juddoo noonu man yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu laa juddoo jógewuma kaw asamaan ca péelu génnewuma ci biir géej gi génnewuma ci biir suuf si génnewuma ci àll bi waaye doomu aadama laa comme yéen mislukum waaye lan mooy sama différence ak yéen lan laa leen rawee mooy yuuxa ilayya yàlla day wax ak man dañ may dee bokk na ci liñ may wax nag mooy annama ilahukum ilahun wahid seen borom de kenn la du ñaar du ñett du ñeent ah du garab du doj du ndox du jant du weer du mbindeef moom kenn la kon nag fa man kaana yarju liqaa rabbi ku mu wóor ci yéen ne yéen mbindeef yi bëccëg a ngi ñëw ku mu wóor ci yéen ne di nga dajeeg sa borom boobu fal yaamal amalan saalihan na jëf-jëf ju baax lépp lu muy jëfati fal yaamal na jëf ban jëf ñu ne amalan saalihan jëf ju baax joo xam ne ngistal amu ci déggtalu amu ci loolu mooy amalu saalih jëf ju baax mooy jëf joo xam ne bi nga koy def yàllaa la ko sant yonent bi moo la jàngal nu nga koy defee nga def ko ci ko waxtu wi ko yonent bi defee woon waaye jëf ja mucc ci ngistal ak déggtal su boobaa rek nekk na jëf ju baax nekk na amalu saalih mu ne ku mu wóor ne bëccëg a ngi ñëw nag di nga taxaw ci sa kanamu boroom na nga jëf-jëf ju baax jooju ngalawaay wala yushrik bi ibadati rabbi ahad jaamu bi ngay jaamu yàlla bul ci associé keneen bul ci bokkaale keneen bul ci boole sa bànneex bul ci boole nit ñi gis la bul ci boole pour nit ñi dégg la waaye bul ci boole mbindeef bul ci boole dara def ko ngir yàlla loolu moo ñu indil problème tey mooy def ngir yàlla def ngir yàlla wax ngir yàlla moo ñu indil problème te yàlla moom lépp lu mu génn rek loolu yàqu na te yàlla lépp luñ ko boolewul bokk ci te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yonent yàlla dafa doy lu ci bokkaale képp ku jëf benn jëf nga boole ci keneen ku dul yàlla yàlla bàyyi laa kooku kon looloo tax mbokk yi téere yu mel ne kitaabu tawxiid ab jullit waru ko desal ginnaaw ndax saa yu ñu bàyyee njàngaleen yii saa yu ñu bàyyee lii saa yu ñu bàyyee doxalin yii saa yu ñu bàyyee mbind yii li muy tekki mooy dañuy tàbbi ca mboy mboy ka danañ bokkaale danañu ngistal danañu déggtalu moo tax suñu duggee ci yoonu jàng ci yoonu leerlu danañu dimbali bis bu ñu ngistal bëggee dugg ñu xalaat ne day yàq suñu jaamu yàlla ñu xeex ak suñu bakkan moo daan nuy bàyyi saa yu ñu bëggee def dara wax dara wala jëf dara déggtal ñëw ñu xalaat ne day yàq jaamu yàlla ñu xeex ak moom ba mu sorinu ndax sunuy jaamu yàlla daal di baax ñaareelu aaya mu ne qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid waxa leen ba tey yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba tey dafal déclaration ñaari aaya yi nuroo nañ waaye bokkuñu saar yi ñu nekk wax leen ne man de mbindeef laa comme yéen ni nga juddoo la ñépp juddoo yonent muhammad wulida kama wulidal bashar ni nit ñi juddoo noonu la yonent yàlla muhammad juddoo aasha kama aasha albasar mu dund ni mbindee fi dindee wa maata kama maata albasar mu faatu ni nit ñi faatoo yonent yàlla muhammad dafa am ay waajur dafa amoon ay soxna am ay doom di lekk di naan di feebar di ñàkk di xiif yu metti di ko dal ay bànneex di ko dal loolu moo tax yàlla nekk mislukum comme yéen ñii la mel comme yéen ñii la ah du malaaka bu ñu jëlee ci kaw asamaan du jinne bu ñu génne ci biir géej gi du ab rab bu ñu génne ci biir àll bi mbindeef la comme yéen innama ana basharu mislukum li ma tàqaleeg yéen rek mooy yuuha ilayya dañ may dee liñ may dee mooy annama ilahukum ilahun wahid na ngeen yëg ne fu ngeen mën a ne seen borom kenn la bu leen ko dendale kenn bu leen ko bokkaale kenn bu leen ko taqale ak dara laysa li min ar-rububiyya na ngeen yëg ne man day moomeelu yàlla yi moom ma ci dara wala min al ilahiyya min shay nekk gi yàlla nekk yàlla dara laa ci taqewul jegewuma ko ba mu wàll ma ma nekk yàlla moomeel gi moom lépp moom ma ci dërëm dara laa ci mënut bal zalika kulluhu lillahi waxda lépp yàllaa ko moom gis ngeen yonent bi maqaama bi mu am daraja bi mu am ndombu tànk yi mu takk ci yàlla terewut wootewul dara dara la wootewul ah fii doomu aadama bi du amul dara te da ngay dégg muy wootewu ñaata woote ngeen fi dégg ñii dañuy gis yàlla ñii ay yàlla lañ ñii ñoom duñu ay nit ah ñii duñu lekk guddi ñii oh la la façon woote bu nekk da nga koy dégg xoolal yonent bi ni mu toll ak lii mu wax ne yàlla day wax ak man yuha ilayya terewul mu ne leen li yàlla nekk yàlla moomeelam dara laa ci moomut yàlla ak yàllaam dara laa ci taqewut lépp yàllaa ko moom delloo lépp ci yàlla moo tax gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wootekatu tey yi wuute nañ wootekatu tey ñu bari dañoo échec lu tax ndax au lieu ñu woo jaami yàlla yi jëme leen ci yàlla dañoo woo nit ñi won leen seen bopp amma yonent yàlla muhammad dafa woo jaam yi jëme leen ci yàlla moo tax mu amoon cent vingt quatre mille sahaaba musuñu ca dégg kenn déborde naan ko yaay yàlla waaw yaay yàlla yaay borom jaam ñi nga ne loolu ëpp na de yaakaarloo nit naan ko yaay borom jaam ñi soo nee na am mu am boo nee na du am du am koo xool mu wér koo nangam nangam mu lii da ngay dundal ku dee di wéral ku feebar xoolal loolu loolu yàllaa ko moom yonent bi lépp la dégagé parce que lu tax responsabilité ëllëg digganteem ak boroomam loolu moo tax mu dàq lépp mu ne lépp yàllaa ko moom wax daw moom kenn laa sharika la kenn du ko bokkaaleeg dara waaw mu ne loolu day awxaahu ilayya lii la ma yàlla wax gi wute na ak nit ñi nga xam ne ñoom kenn waxul ak ñoom ba pare yenn saa yi nga dégg ñu wax lu gën a garaaw loolu mu ne fa man kaana yarju liqaa rabbi képp koo xam ne wóor na ko ne leer na ko ne dana dajeeg boroomam mu ragal loolu yaxaaf fal yaamal amalan saalih na jëf-jëf ju baax wala yushrik bi ibadati rabbihi ahad nga lawaay bu mu bokkaale ak yàlla kenn bu mu dendale ak yàlla kenn nee na baat bi mu ne ahadun nakira la nakira yéen ñi jàng arab nakira mooy lan nakira mooy ku ñu xamul fi siyaaqi nahyi baatum nakira su ñëwee ci baat mu ëmb tere ta umm day matal lépp kon yàlla daa tere loolu lépp bu kenn def ahad la yàlla wax ahad kenn ci yéen ku mu wóor ne dana dajeeg boroomam bu mu ko dendale ak kenn loolu leer na wala yushrik fi ibadati rabbihi ahad bul bokkaale yàlla ak kenn ahad leer na nañ kon soo fi bàyyee yàlla dem di ko dendaleeg ay ëkk ki ay guye ki ay garaba ki ay nit ki bàmmeel ci problème ngay dekk ndax yàlla tere na la ko nee na dafa matale wa haza al umum yatanawalu al anbiya wal malaika was salihin wal awliya wa ghayrihim baat bi ci aaya bi yàlla tere ne buñ ko dendalee kenn walla lenn nee na lu matale la ëmb na yonent yi yonent yi li ñuy baax baax baax baax buñ ci jël benn yonent di ko dendaleeg yàlla ndax yàlla du moroom ëmb na malaaka yi malaaka yi li ñuy baax baax baax buñ ci jël benn malaaka di ko dendaleeg yàlla ndax yàlla du moroomam ëmb na nit ñu baax ñi sëriñ seeg wali yu yeeg ñooñu ñuy wax di leen wax nangam ak nangam ñooñu ñépp li ñuy baax baax buñ ci coqati kenn di ko yóbbu ci yàlla di ko dendaleeg moom buñ ko dendaleeg yàlla parce que yàlla du moroomam yàlla boroomam la kon mbokk yi ab yonent li muy baax baax ab malaayika lu muy baax baax nit ku baax li muy baax baax ñetti ñii ñëpp groupe yi yëpp waruñ cee rocc ci kenn wala ñu coqati ci kenn yëkkati ay darajaam di ko jay ba teg ko palaasu yàlla yàlla du moroom ak ñeneen ñu dul lii ak leneen lu dul lii ak ñeneen ñu dul ñii waruñoo jël kenn di ko teg ci palaasu yàlla yàlla du moroom boroom la waaw yàlla du moroom boroom la yàlla moom moo bind mooy dundal mooy rey mooy wërsëgal mooy joxe mooy xañ lu ko neex mooy am bu leen yaakaar ne kaw suuf si am na lu fiy xew te neexul yàlla moo xam loolu di xew neex nanu wala neexunu kontaan nañ ci wala kontaanuñ ci gërëm nañ ko wala gërëmuñ ko bëgg nañ ko wala bëgguñu ko lépp ci loxo yàlla ci nammeelam ak ay coobareem ak kattanam la koy defee nu ko neex moom yàlla qaala cheikhul islaam amma liqa bu dee daje bi yàlla wax ci aaya bi man kaana yarju liqaa rabbihi faqad fassarahu taaif min as-salaf wal xalaf daje googu lenn ci ay borom xam-xam ñu njëkk ña ak ñu mujj ñu ñu mujj ñi firil nañ ñu ko ñu ne dafa ëmb maa yatadammanu almuaayana am na ci lenn ci ñoom ñu ko firi mooy keroog bu nuy jàkkaarloo ak borom bi wa qaalu liqa allah ñu ne man kaana yarju liqaa rabbihi ku mu leer na di nga dajeg boromam ñu ne baat boobu yàlla ne daje boobu ñu ne mooy dajeg yàlla yàlla nag bu ñu dajeeg moom daje gi li muy tekki mooy dañ koy gis yatadammanu ru'yatuhu subhanahu wa taala yawm al qiyaama dafa ëmb ne yàlla danañ ko gis ëllëg yawm al qiyaama gis yàlla lu mën a nekk la lu dëggu la waaye du àdduna nag kañ la ñuy gis yàlla ëllëg alaaxira bu ñu deewee ba faatu yàlla daje nañu ardul mahsara bim ginnaaw bam nu dekkilee ñamu gërëm mu dugal leen aljanna ñu kontaan lool di xéewlu di bég di zibile ca biir aljanna ñu kontaan lool lool lool ci la yàlla subhanahu wa taala nag di leen feeñoo naan leen bég ngeen ñu ne waaw kontaan ngeen ñu ne waaw yàlla mu ne am na lu des ñu ne ko yàlla fii nu nekk ci kontaante mu ne ñu ne ko mënootoonoo jox lu nu kontaan loo yàlla mu ne ah kay ñu ne fii nii lii nii ñu ne waaw ndeysaan sunu wenn bàyyi daa dem màkk fan yi ñëw ñu dem ziare ji ko rek mu ne yàlla desalatuma dara waaw yow même màkk ñëwaat rek desalatuma dara li des a bëri léegi nag kon ku dugg aljanna nga nekk ci xéewal yooyu di xéewlu yàlla ne la am na lu des nga ni déedéet yàlla mu ne des na lu bëri ñu ne lan yàlla mu ne nag dinaa dindi kiiraay bi dox sama digganteeg yéen ngeen gis ma allahu akbar dugg àjjana li muy neex neex léeg-léeg saa ñu dégg aljanna yéen a jàpp ne ay garab la pomme orange banana ay dexu meew dexu lem ay jigéen yu tudd urul ay ni lekk yàpp picc nangam nangam ñu ne loolu neex na de ñu ne waaw waaye boo déggee aljanna sa xel na dem ci gis borom bi aljanna boo ko déggee sa xel na dem ci gis borom bi loolu mooy xéewalu aljanna mais du lekk ya du naan yi du dex ya du sàngara sa du meew mi du soow mi xéewal yi gën a rëy ci aljanna mooy gis yàlla allahu akbar loolu rek mbokk yi suñ la ne woon kaay nga gumba sa dund gi yëpp ba nga dee alaaxira nga gis yàlla wallaay jar na suñ la ne woon kaay nga xool lépp waaye alaaxira doo gis yàlla wallaay jaru kan ci ñun fi toog ku bëggul gis yàlla waxuma la sax yàlla ñun ñu toog fii yëpp bëgg nañu gis Macky Sall wala fii ñun ñu toog nii suñ fi woon léegi kenn téléphone ne ko Macky Sall na def da ngeen bëgg a gisee yéen ñaar kan ci ñun fi moo dul nangu dangay bañ yow yow yow yow kenn du bañ man mii est-ce que dama naan leen suba daf dar su du am de président moom woo yàlla nag allahu akbar kon mbokk yi loolu mooy xéewal gu réy gi muy ëllëg yowmal qiyaam ñu gis suñu borom kon bu ñu déggatee aljanna buñ jàpp simplifier ay lekk naan bal li gën a rëy mooy nu jàkkaarloog sunu boroom wujuhun yawma idin naadira ila rabbiha naazir wujuhun yawma idin naadira ila rabbiha naazir yal nañu yàlla defal lool ah yal nañu ko yàlla defal mu ne gis yàlla googu mbokk yi ëllëg la yowmal xiyaam la mu ne wa zakara al adilla ala zalika yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam leeralal na saxaaba yi lu bare bari ci ay adilla yi wane ne ëllëg yowmal xiyaam danañ gis yàlla bokk na ci wax na leen moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam yeneen gis weer wi ñu ne waaw mu ne ndax bu ngeen ko gisee di ngeen am problème ñu ne déedéet xam nga xool weer wi ak xool jant bi du benn jant bi kenn mënu koo xool amaa weer wi mu ne di ngeen di ngeen gisee weer wi nii ak seen ñaari bët ëllëg yowmal qiyaam di ngeen gisee noonu seen borom di ngeen ko gis ci leeraay goo xam ne du leen lor comme weeraa leeraay weer wi nu mu leen nu mu dul lore seen bët yi noonu ngeen di gisee yàlla ëllëg allahu akbar kon adilla yu bëri ñëw na ci di wane ne jëllu di ëllëg danañ gis seen borom amma fii ci àdduna kenn mënta gis yàlla mu ne qaala ibnul qayim fi l aaya ay kama annahu ilahun wahid na nga ngeen xamee ne seen borom kenn la laa ilaha siwaahu amul kenn kudul moom fa kazalika yambagi an takuna al ibadatu lahu waxda la sharika la bokki jullit yi sunu xamee ne sunu borom kenn la mooy buur mooy yàlla moo moom moo yar moo dundal mooy rey mooy dekkil kon nanu leer ne moom yàlla moomu moom lañu war a jaamu jaamu gi moo ko moom moom kenn waruñu koo dendale kenn wala lenn fa kama tafarrada bil ilahiya yajibu an yufarrada bil ubudiya ni mu nekkee moom yàlla kenn cundung ci nekkum yàllaam noonu lan ko war a kennalee ci jaamu giñ koy jaamu bañ ko dendaleeg lenn wala kenn moom yàlla ku ne cundung la ku tóol ci ak yàllaam koo fi dégg ñu ne yàlla la déglu ko ay fan léegi nga dégg ñu ne dee nañu gas suul ko firawna moo njëkk ne maay yàlla fu mu mujj dee na ñi ngeen di dégg ci jamono yi ñuy woote yàlla it fu ñuy mujj hmm? yoof rek wala pikin wala caaro yi gas bu mu xóor rek ne ko man tañ ci biir ñibbi kon du yàlla ana yàlla moom day dund te du dee kon yàlla moomu nga xam ne mooy kenn ki tóol ci ki moom nekk te mu nekk kenn ci yàllaam noonu lañ ko war a gëmi ci wéetal ko ci jaamu gi xam ne moom kenn moom lañ war a jaamu waaye jaamu goo xam ne day ànd ak jëf ju baax nan lay àndee jëf ju baax fal amalu saalihu wal xaalisu min arruya mooy jëf joo xam ne dafa set wicc ci ngistal waaw al muqayyadu bi sunna jëf ji ba mu muccee ci ngistal dañ koo yeew ci sunna waaw jëf ji ba mu muccee ci ngistal da nga kaa yeew ci sunna lan mooy yeew ci sunna mooy da nga kaa defee ni ko yàlla bëggee kon mbokki jullit yi ci kàttanu sunu boroom lii mooy darsu tey noo ngi jéggalu di ñaan yàlla sunu boroom jalla jalaaluhu njuumte yi ci nekk yàlla nañ ko jéggal di soññ suñu bopp di leen soññ ci jàng ak di déglu dars yu mel nii joxe woon nañ téere yi kitaabu tawxid pour kenn ku nekk ki ko am mu indi ko incha allah di tiim ci bind yi dina la jàppale dina la dimbali boo delloo kër ga nga mun ko nafaraat ñoo ngi jéggalu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh fekkee am na ay leerlu yuñ ciy leer waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu